mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi ak euh, Pape Momar Gaye adjoint au maire bokk euh, ci cellule de communication organisation bi nga xam ne tey ñu ngi fii ci barab bu tedd bi di. ñu ngi ci dëkk bu tedd bi di Tiwaawan ñuy màggal centenaire suñu góor gu baax googu Seydi Hadji Malick Sy yàlla na yàlla yokk leeram tax su ci ay barkeem alors euh, gannaaw bi ñu la nuyoo sëñ bi ma noppi ziar la. mën nañu xam programme bi ak li nga xam ne tey moo waral bés bu tedd bi nga xamante ni moom la ñuy màggal fii ci Tivaouane. Euh, jërë ngeen jëf ñu ngi nuyu ñëpp di sant yëpp di jël suñu nuyoo di ko teg ci loxo xalifa bi muy Serigne Babacar Sy Mansour mu jàllale ko ci mbokku jullit yëpp. waaw programme bi nag euh, mu ngi commencé démb ñu ngi doon organiser fii benn xadaratul juma euh, bi nga xam ne daanaka taalibe yi vraiment ñëw nañu en grande masse teewe si ko. tey nag euh, ci le président de la république war a ñëw ñu dalal ko mu visiter si jumaa ji xool liggéey bi fi mu toll bu paree visiter benn exposition boo xam ne ñu ngi koy def ci dundu si maam Cheikh Sidi Hadj Malick bu ñu demee ba ci ngoon gi am na conférence bu mag boo xam ne moom la ñuy def ci thème bi Cheikh Sidi Hadj Malick cent ans après lumière sur sa vie et sur son œuvre ki nga xam ne moo koy def di professeur Mbaye Thiam euh, professeur euh, Abdou Aziz kebe ak euh, oustaz maxtar Kebe ak euh, ki nga xam ni euh, moom mooy docteur Bachir Ngom bu Paal donc ñoom ñooy def conférence bi suñu paree si guddi gi am na gàmm gu mag gu ñuy organiser goo xam ne njabootu maam Cheikh Sidi Hadj Malick ñoo koy def muy sëñ Sidi bu sëñ Abdou Aziz Al Amin ak sëñ maam Malick bu sëñ Massir si borom daara ji bu ñu xëyee dimanche ci suba am na benn concours récital de Coran boo xam ne commencé woon nañ ko ci la ñuy jox xale yi nga xam ne ñoom ñoo raw euh, li nga xam ne moom mooy seen ay trophée ñu ci xamalaale nit ñi ne am na ay bourse yu bëree bëri yoo xam ne monsieur le maire maye ne ko xale yi nga xam ne am nañu bag ci ren jii suñu paree ñu mën a dem fu mel ni Égypte ak feneen mën a xóotal seen xam-xam euh, suñu paree incha allah ci ngoon gi dinañu def benn tàkkusaan boo xam tàkkusaan à thème la ay jàngalekat ak ay ustaas yu mag di ko teewe ànd ko ak waykat ñi nga xam ne ñooy Tiwaawan ñoom ñoo dëkk Tiwaawan suñu xëyee ci lënd bi mu tombeek vingt 27 juin muy jour bi nga xam ne ci la fi maam El Hadj Malick Bawoo ci la ñuy def nag journée ñaan bi jox nañu ndigal taalibe yëpp ku nekk fa nga nekk dina am ay dog yoo xam ne moom la ñuy joxe ak ay lim ku nekk fa nga nekk nga def ñaan ñu barkeeloo ko ci ci centenaire bi mu nekk tamit occasion pour ñu ñaan yàlla euh, mu def ci dëkk bi jàmm ñaan yàlla nawet geek lépp lu nga xam ne aju na ci lu jëmale Sénégal kanam ak loo xam ne dina indi dal ci àdduna bi mu nekk occasion ñu def ci ay ñaan. dañu dañu gis euh, ci li nga xam ne moom mooy bés bi comme tey ñun bi ñu fekkee dañu gis ne da ngeen da ngeen xaw a jox gëdd xale yi lu waral lool ak concours alquran bi nga xam ne yéen a koy def pour euh, honorer leen ñëw mi lu waral loolu. waaw ku ne xam na ne Tivaouane bu ñu ko xamee maam Cheikh Sidi Hadj moo tax. te moom ñëpp xame nañ ko ci jàngale xame nañ ko ci daara xam naa loolu damay bàyyi sëñ daara mu ñëw ci xëy na dama koy introduire rek mais liñ ci jublu daal mooy président bu ñëwee mu xam ne ñii mu fiy fekk si ay xalal ya yi nga xam ne dañ leen di tàggat ci arxuraan mais mu xamaale tamit ne am na ay programme yi nga xam ne maire bi mu ngi koy tëgg te soxla nañ ci gungeem ndax dañoo bëgg centenaire bi buñ ci jógee mu nekk bunt boo xam ne daara yi dinañ am ay programme yu wër yoo xam ne dinañ ko def gunge leen ndax dëkk boo xam ne dañ naan am na plus de deux cent soixante-dix daara loolu ñoom ñoo ëpp école yi ñoo ëpp élèves euh, ci wàllu woowu yëpp da ciy jëm mais am na ci yeneen information yoo xam xam naa damay bàyyi oustaz xëy na mu gën leen expliquer solos li nga xam ni moo tax ñu préféré accueil bi xale yi def ko